coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag nee nañu woon àllarba ne moom la ñu dëgmale abal mobilisation ca place de l'Obélisque waaye loolee mujj nañu ko njiitu réew di président Macky Sall bëggoon naa def nag ab tukkim nemmeeku maanaam ab tournée ci Kolda ak wër waaye nag loolee tamit teg na ci suufa ndax li xam ne mooy pré campagne bi dañuy tere wàllum propagande yéene kaay gi di réew ko di cee nee na xam ne ñooy waa coalition nee na manifestation boobu nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi dañu ko bëgg bu dee nag préfet dàq na bu mu bett kenn te bu ko préfet dàqee bu dee nag gars yi waxuñu see maanaam ay violence jàppante problème mën naa am ci réew mi yéene kaay gi di enquête am na ancien préfet nee na dogal bii nga xam ne gouverneur jël na ko ab dogal la boo xam ne préfet moo ko waroon a ndax préfet moo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum saytu ordre public bi yéene kaay gi di Walf bu ñu waxante dëgg Sénégal ci mbëkk miir bi la jëm maanaam ci kaw ci mi neexul yéene kaay gi di la sa fekk fa réseau des universitaires ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax yu doy yu garaaw yi nga xam ne Ousmane Sonko ak Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké def nañu ko fan yi ñu génn ci mobilisation bi nga xam ne yeewu askan wi doon nañu ko amal réseau des universitaires républicains ñoom nag ñaawlu nañ ko bu baax a baax ndax nee nañu lii ay déclaration la yoo xam ne yu grave grave la waaye tamit yu irresponsable la ñoom nag woote nañu ak dala démocratie la ñoom réseau des universités républicains ñoom professeur Moussa Balde ñoom nag nee nañu ñaawlu nañ bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy woote ci jëm ci wàllum ak boor bu mu mën a jugee yéen i kaay gi de la turbine Ibrahima Mbacke rakku sëriñ Modou Kara moom nag nee na jamono ji dafa war wax ak askanu Sénégal Ousmane Sonko dañoo war a rassurer Sénégal yi dalal seen ko di jee nee na investiture nga xam ne benn bokk yaakaar def na Ascosen moom nag ñaawlu na bu baax a baax doxalinu conseil constitutionnel nee na conseil constitutionnel dogal bi nga xam ne jël na ko ci élection législative yi loolee méngoowul ak droit jamono ci yaa problème ci bu ñu demee ba conseil constitutionnel nekkatul ab cour boo xam ne bu crédible la yéene kaay gi di enquête nee na avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nag dañoo sàkk woon doyen des juges daal di déglu nag capitaine Omar Touré mi nga xam ne mooy yoroon enquête bi ci jëm ci mbiri Adji Sarr doyen des juges kon ki nga xam ne mooy capitaine Touré danañu ko daal di déglu laaj demee ndax tamit dañu ay pression waaw wala déet ak Adji Sarr ba muy ñëw nan la comporté woon yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu njiit réew di président Macky bi mu demee ca diwaanu Paris la France dafa recevoir activiste di Californie Californie mi nga xam ne ñëpp xam nañu ko ci làmmiñ wu ñaaw ci ay saaga waaye nag Marème Faye Sall ak Macky Sall mii la doon saaga Californie moomee di activiste moom la Macky Sall loolee nag moo tax gars yi ñaawlu a Sall ci boppam moo offensé république bi te nag Cheikh Abdou Bara Dolly jamono ji dañu ko réere ci loo xam ne amul benn xaara te Macky Sall jamono ji mën nañoo wax ne wëratul jàpp kenn ci lu jëm ci wàllum offense au chef de l'État Macky Sall dafa rendre hommage mbooleem ñi nga xam ne ay saagakat la ñu te nekk ci internet bi France doomu réew Sénégal yi nga xam ne ñoo fa nekk di liggéey ñooñu la Macky Sall wala na recevoir waaye nag di recevoir ki nga xam ne ab saagakat la Macky Sall léegi insulteur yi lay fréquenté kaddu yu yi nga xam moom la ñu génn Kaliphone moomee la Macky Sall recevoir ñu wax mu ne day def ak moom ab interview yéen kaay gii di Le Quotidien ak Sud Quotidien nee na lu jëm ci wàllum ba fa bayot ñi nga xam ne joxaar bi nañ leen baaraamu tuuma tey jii la verdict bi wat maanaam dogal bi nga xam ne tribunal dina ko jël ci lu jëm ci wàllu woowu yéen kaay gii di 24 heures nee na gouvernement bu Inde seen porte bi kaddu yi a baax ñi nga xam ne ñooy jullit yi loolee gouvernement bu Sénégal ngir nag mu lijjanti situation bi nga xam ne moom la julli di nekkee ca Inde waaye tamit ñu convoqué ambassadeur bu Inde bi nekk Sénégal waaye nag li nga xam ne moo doy waar ci mbir mi muy présidence di ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères bëgg-bëggu sëriñ bi gars yi defaguñ dara yéen kaay gi nee na bi ëmb syndicat yi nekk ci wàllu wér yaram ke mer nañu ba mara détail yi danañu amal ñetti fan yi nee ma 72 heures